comme nuñ ko waxee activité bi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal fu mu toll fii mu war a dem ci juróomi fan activité bi chambre de commerce de Dakar ak PSEU ñoom ñoo ko séq léegi mu ngi war a nekk ci wàllu procédure administrative yu aju ci wàllu entreprise mais également lu jëm ci wàllu accès au marché public lu jëm ci wàllu étiquetage emballage conditionnement en même temps tamit am na ci benn boo xamante ni c'est la tenue de comptabilité li waral loolu moom mooy fu mu toll fii jàpp dañoo nekk ci jamono joo xam ne dañuy dund ay jafe-jafe rawatina jigéen ñi ci contexte bi nga xam ne crise sanitaire bi jaar na fi beneen bi tamit mooy guerre bi nga xam ne moom am Ukraine bu commencé am ay jeexi jeexital suñu dëkk yi. moo tax chambre de commerce en tant que maison des entreprises moo PCJ ñu gis ni war nañoo mën a def benn euh, ay activité yoo xamante ni dañuy gën a dooleel jigéen ñi pour ñu gën a mën a dund si pour ñu gën mën a génn ci jafe yi nga xam ne la ñuy dund. léegi nag bi ci remercier waa PAF ñi nga xamante ni vraiment ci seen wàllu expertise mais également collaboration bu ñu def en terme de contribution ci ay GIE ak demee noonu. critère de choix bi critère de choix bi ci ñetti anam la ay porteur de projet la am na ci ay entreprise individuelle mais également ay jigéen yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci wàllu GIE yi surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu transformation ak yu mel noonu. Maimouna Diagne euh, man la teg ma nekk njiitu. Euh, plateforme africaine pour l'autonomisation des femmes muy PAF PAF nag euh, mi ngi nekk organisation boo xam ne euh, mi ngi tolloog mille femmes mooy ñeent fukki junni ak benn jigéen ñoo xam ne ay baykat lanu ñoo xam ne ay transformatrices lanu ñoo xam ne ay commerçantes lañu ñu invité ñu tey jii fii ci chambre de commerce en partenariat avec PSEJ ñi nga xam ne xëyu ndaw yi moo leen yitteel ñu ñëw fi tey indi jigéen ñi. pour ñu former leen pour ñu wut xam-xam ci li nga xam ne moom lañu soxla ci seen liggéey donc ñu leen di remercier parce que bala ngay wutal nit ki liggéey jàngal ko nu muy liggéeyee ba noppi donc jigéen ñi saa yoo leen woowee ñu ñëw ñoom tamit ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ci mobilisation bi ñu def jóge fu nekk ak koor gi ndax ñoom ñëpp a woor ñoom ñëpp yor kër te suñ fi jógee ñi ngi dem di defar seen dogu waaye bi ñu leen woowee ci xam ñoom ñëpp dañoo bàyyi leen nekk yëpp daal di ñëw teew fi ak ñun ñu war fee nekk une semaine ak ñoom donc au passage ñu ngi remercier monsieur Guèye le secrétaire général euh, de la chambre de commerce ñu ngi remercier monsieur Kane qui la le point focal sur ce programme nga xam ne euh, pendant des jours et des jours ñu ngi liggéey ci lii pour fexe jigéen ñi ñëw xam-xam bi ñu bi ñu soxlaa am ñu jox leen ko ci semaine bi incha allah. waaw ñun ñu ngi xaar su li jeexee jigéen ñi nga xam ne ñu ngi doon yëngatu ci lu bari xam ne euh, lépp looy def dafa da nga ko war a xam soog koo war a def da am ay jaar-jaar yoo war a jaar soog ko ko war a def fi mu toll ni formalisation ngi ci comptabilité ngi ci comptabilité ngi ci Fra mi ngi ci ñëpp xam na ni Fra mooy problème mu jigéen ñi jigéen ñi dañuy yore seen liggéey di liggéey ay at te duñu mën a am Fra donc loolu tamit war nañ leen ko yombalal waaye war na nañoo xam fan lañ war a jaar ba mën a am Fra embalage nit ñi xam na ni léegi produit bi jaay du produit bay jaay emballage bay jaay donc problème mu emballage am nañ ko war na noo xam tamit yan jumtukaay lan leen lanu war a jël pour emballage yi nga xam ne mooy seen problème ñu ñu xam nan lan koy amee donc bëgg nañ suñu génnee fii si juróomi module yi ñuy def jigéen ñi xam fan la ñuy teg seen tànk pour gën a yokk seen liggéey pour gën a maximiser seen liggéey pour gën a optimiser seen liggéey donc suñu jógee fii yaakaar naa ne euh, beneen liggéey la ñuy liggéey beneen wax la ñuy wax mais aussi création d'emploi xëyu ndaw yi ak xëyu jigéen ñi moo yitteel ñëpp fi mu toll nii suñ fi jógee yaakaar naa ni ñoom tamit dinaan waxtaan ak seen moroomi jigéen waxtaan ak seen moroomi ndaw ba ku ci nekk mën a taxaw foo xam ni su ëllëgee di nga am liggéey bi nga bëgg